dem ñaar dërëm jox la soo génnee di campagne ñu sigil la ci sa ay kanamu nawle def mobilisation bu exceptionnelle mu mel ni yow rek yaay campagne ci réew mi loo wax soo tuddee Pastef Varda sax mu manqué ci pharmacie yi loolu yaakaar la yaakaar bu rëy a rëy a rëy la sénégalais yi am ci président Ousmane Sonko di ñaan nag yàlla yaakaar boobu su tasee du ñu arrangé ñun du leen arrangé yéen presse bi du arrangé kenn ci réew mi parce que vision deux mille cinquante bi su réussir muy yow mi ànd ak Pastef ak ki àndut ak Pastef ñëpp a di seen bopp donc ñi ngi ñaan yàlla mbir mi bañ a yàqu nag amatu ñu lay lay amatul sénégalais jël nañ lépp jox ko nguur gi man dama dinaa amoon lu ma metti su fekkee ne dañoo jox exécutif te joxuñu ñu législatif parce que boo légee suñu échoué yi duñ ko nangu parce que dañ naan joxoo la ñu législatif waaye tey lay amatul te bii mooy dernière élection man loolu laa gëm te lu ma dem laay wax man kenn gënu maa bëgg Ousmane Sonko kenn gënu maa adopté projet bi koo xamante ne pare nga ba ñàkk ci sa bakkan kon kenn gënu la koo bëgg waaye na Pastef ak ñi ànd ak Pastef ak ñi ñu dénk responsabilité ci nguur gi nañu xam benn mbir pour que ñu mën a mobiliser waat ces pour que ñu mën a mobiliser waat cette jeunesse engagée et déterminée bu boobaa dinañ teg lu leer nañ seen loxo dootul nekk di ci discours de soo leen ñu falee ñu def nii dootul nekk ci loolu waaye bi ngeen ñu falee léegi def na ñaari at nii lañ fi tegagum te commencé nañu ko ndaxte ci programme yeeg ci campagne yi gis ngeen ñuy teg ay résultat yu ama am solo ci accord de yeneen ak yeneen am na solo nañ ko gën a yokk xool ni ñuy def ba téye ndaw ñi ci réew mi politique d'industrialisation bi ñu mën ko matal. waaw euh, opposition mënul ñàkk ci réew waaye sénégalais yi tey lancé nañu benn message bu fort sénégalais ba ñu opposition rek waaye dafa bëgg une opposition responsable opposant opposant kilifa ci opposition nga taxaw di saaga sénégalais yëpp di la dégg opposition boo xam ne nguur defagul juróomi juróomi weer nga taxaw ne da nga def motion de censure loolu ce n'est pas de la responsabilité opposition boo xam amul benn programme tam ci yéen moomu mën a limal programme opposition la le président Ousmane Sonko fu mu dem def fu mu dem def fa meeting taxaw na wax ci pôle boobu lan la nguur gi nar loolu mooy programme mais kan moo lay proposition opposition bi ne leen bés boo ma yóbbu assemblée dinaa fa taxaw taxawaayu député te dinaa fa def lii ak proposition de loi dégg dégguma ko ci ñoom donc nañu xoolaat seen méthode ñii moom dee nañ day muy Amadou Ba week ay ñoom euh, Barthélémy Dias 2027 boo ko teree mu jógee ci bopp réew mi ci bopp mairie Dakar ak yeneen ak dégguma waaw soo xoolee nag jàngat bu ñu jëkk a def mooy taux de participation bu élection présidentielle yi mooy ëpp parce que enjeu yi foofu moo ëppoon Sénégalais dañoo bëggoon Macky Sall jógee fi waaye soo xoolee si ñu participer nga xool ñeen lu ñu am nga xool Pastef lu mu am benn jàngat nga ciy def muy les militants de Pastef se sont pour aller voter mais militants wu ñeneen ñi dañoo mujjee toog parce que jàpp nañ ñi dañuy mi ngi garder ba léegi kii yoon dañuy xaar rek résultat de parce que sooy xool donc ñu ngi koy yaakaar xëy lu ci solo mooy majorité bi c'est déjà acté et que 150 yi ñu doon wax sax est-ce que mu lee doon 160. ndaxte damay ragal waa sàmm sa kàddu ñu mujjee jàll ak plus fort reste. ah ay deux ak trois plus fort reste nga dara jàll donc. waaw boo gisee nag Matam zone Fouta ñu ngi koy commencé di perte ndànk-ndànk parce que sénégalais yi ñu ngi yeewu am nañu mbir mi du mbirum waaso du mbirum xeet mais mbirum avenir bu Sénégal la et ils sont de prendre conscience de la situation et que au fur et à mesure dinañ gën a continuer may daaneel di wax ni ñëpp suñ jox tarfatal ay nit ci responsabilité ci nguur gi yàlla waaye jàppal ni luñ la jox ci responsabilité moo mën a tax sénégalais yi mën a mobiliser waat prochaine élection nañ ci bàyyi xel bu a baax c'est tellement essentiel mënatuñoo mobiliser Sénégalais yi sans résultat parce que jox nañ ñu lépp jox nañ exécutif jox nañ ñu législatif li nga xamante ne mooy élection mairie yi loolu pour benn pouvoir bu ñu déconcentré la rek amul solo su bëri waaye li ci ëpp solo mooy pouvoir exécutif pouvoir législatif jox nañ ñu ko dañ teg réforme yi saytuwaat xool lu ñuy def ba liggéey ba sukkali réew mi su ko defee Sénégal mën a jëm kanam ñu mën a mobiliser waat Sénégal merci beaucoup kooku mooy euh, Papa Abdoulaye euh, Touré je crois que euh, xam ngeen ko bu baax a baax a baax ci li nga xamante ni moom ci engagement am par rapport li nga xamante ni moom mooy Pastef ak boy mu ngi dafay dafay suuf merci beaucoup Feeling Dakar TV mi nga euh, bi fii ci Feeling Dakar TV gis ngeen li nga xamante ne moom mooy euh, Pastef comme ko Papa Abdoulaye euh, Touré léegi amatuñu lay amatuñ li nga xamante ni moom li ñuy xaarati jox nañ ko li nga xamante ni moom mooy bi ak li nga xam ne moom mooy législatif bi donc li ñu des mooy liggéey Euh, transformer réew mi ci li nga xamante ne moom mooy euh, les bonnes choses yi nga xamante ne moom la ñuy xaaree li nga xamante ne moom mooy euh, Sénégal Ndiaye mi ngeen mbokk yi yaakaar naa ñu ngi fi nga xam ne moom mooy ci buntu siège bi nga xamante ne moom mooy Pastef les patriotes ci li nga xamante ni moom mooy jeexantalu élection yi gis ngeen ko la fête est belle fii ci buntu fi nga xamante ni moom mooy Euh, siège du euh, Pastef nekk fii ci euh, siège bi nga xam ne moom mooy ci VDN bi gis ngeen ko la fête ay belle ñëpp ñu ngi taxaw di foo di fecc di reetaan ànd ak li nga xamante ni moom mooy les militants ak les sympathisants yi nga xamante moom mooy Pastef les patriotes yeneen gis ki nga xam ne mooy ki wax léegi ki nga xam moom mooy Papa Abdoulaye Touré ci li nga xamante ne ci la joxe astu bu ama am solo par rapport ak li nga xamante ne moom mooy léegi parti bi nga xam ne moom mooy bi ah, jot na li nga xamante ni moom mooy daal li nga xamante ne moom actuellement amatul li nga xamante ni ah, moom mooy lay ci li nga xamante ni moom mooy ah, liggéey bi actuellement lépp jeex na jox na li nga xamante ni moom mooy majorité bu am na solo donc actuellement y a plus rien à perdre il faut se concentrer ci li nga xamante ni moom mooy liggéey bi donc amatul lay amatul benn loo xam def loo xamante ni yaakaar naa ni dinañ ko laaj les Sénégalais encore une fois mu doon loo xamante ni euh, yaakaar naa ni c'est très important un message très très fort bi nga xamante ni moom euh, Papa Abdoulaye euh, Touré wax na ko tout à l'heure moom mi nga xamante ne on se rappelle ci fi nga xamante ni fi la jaar ak li nga xamante ni moom mooy Pastef ak fi nga xamante ni fi lañ ko mais tey ñun ñoo ko fajal suñu bopp xam nga lañ ko fajalee suñu bopp parti yi lépp loo koy naqari sa àdduna da ngay noppi ba élection ñëw nga jël sa carte sa carte mooy sa voix tey Waly génn mu njëkk wax non lan moo fi a yow kan la wax cent quatre-vingts fois yow ngay quatre fois ne da ngay toog xaar bi tax am na yoo xam ne wax beeg dafa ko moom instant bii jot nañ ah, ah, di wax ne rek am nañu mbégte ak contentement te yaakaar naa ne résultat yi nga xamante gis ngeen ko euh, nekkul ay résultat yi nga xamante ni bett nañ ñu parce que bu ngeen xoolee ci campagne bi bépp bépp nga xamante ni aussi sillonné euh, nañ ko fii ci biir Dakar gis nga ne mbooloo dañuy génn ànd ak ñun te loolu yëpp boo ko gisee liggéey la bi nga xamante ni mooy euh, honorable député Abass Fall muy borom Dakar liggéey na ko ànd ci li nga xamante ni mooy député yi nga xamante ni investir nañ leen te bu ngeen gisee ne. ba campagne bi jeexee ba léegi nii ba campagne bi di waaj a jeex le président Ousmane Sonko dikk Dakar feddali kóllëreem ak waa Dakar vraiment mu nekk loo xamante ni lu am amoo am solo la léegi résultat yi nga xamante ni wàcc na si bett ñu parce li ñu gëm ñun ñi nga xamante ni ñooy ñooy euh, patriotes yi mooy le président Ousmane Sonko le président Diomaye Faye dañu proposé li nga xamante ni mooy projet projet bi nag sénégalais yi gëm nañu ko te boo xoolee bi ngeen seetaanee li nga xamante ni mooy référentiel des politiques publiques Sénégal 2050 ngeen xoolee li nga xamante ni mooy quatre axes yi nga xamante ni développé nañu ko ci day wane ne Sénégal dëkk la boo xamante ni dëkk bu am yaakaar la loolu moo tax tey Sénégal yëpp voté massivement teel a génn voté ki nga xamante ni mooy parti bi di Pastef les patriotes mu nekk loo xam te lu am am solo la.